inna naka nun am sol naa ko waatal nan ko moom alquran ndeyam mu doon jëlal mahfuz ba ci asamaani adduna ji de fi laylatul qadri ci guddi laylatul qadar de alquran lépp mu ngi wàcc ci guddi laylatul qadar ndax teewtew dem wàcc na ci mboolem weereen mboolem at yi ba muy juróom ñaar fukki at ñett waaye wàcc bu njëkk ba mooy dañ ko toxalee ci lawil mahfuz indi ko ci asamaan si te ci àdduna ndax mu gën a jege jibril di ko toxale foofu nag di ñëw lu tolloo ko tege àdduna bi loolu nag yàlla ko war la amee ci guddi laylatul qadar guddi laylatul qadar boobu lañ dajee di teg ñanam kër ñaar fukki guddi ñanam kër ci weeru koor mooy guddi laylatul qadar ca bu ma waxaat dafay taxu nag wa maa adraaka an lu amal la sax maa laylatul qadri laylatul qadar ma jaa an lu amal laylatul qadar ñu daan màggam laylatul qadri laylatul qadar xayr moo gën min alfi shahr ci junne bu weer laylatul qadar moo gën junne bu weer junne weer mooy juróom ñett fukki at ak ñett ak suñu at yenn guddi boobu jaamu ci yàlla moo gën jaamu yàlla juróom ñett fukki at ak ñett ak suñu at guddi laylatul qadar nag nëbb nañ ko ci mboolem weeru koor yëpp woorkat bi di xam ne ci mboolem guddi weeru koor guddi gu jot mu jàpp ne mooy guddi Laylatul Qadr bon ci neema jàmm wali ci mboolem ci nit ñi bëgg ci nit ñi rek loo naan ko wali yàlla la koo gis daal fekk wali bu dee faa nga jiw fekk waliw moo gën nga jiw ci waliw def ko faa fekk ci ne moom da nga yàlla ko ci ne moom doo ci jëlee lu muy fayal yàlla moo tax ba koo gis rek ñu jullit jàppal ne waliw yàlla woo loolu la yàlla jublu moo tax mu nëbb waliw ne ma maa ràññal jiw ak jiw ak jiw ñëwee samay waliw naa waxtu nangu ñaan ci guddi nëbb nëbb ngir bëgg guddi gépp naka naa jaamu guñ nangu ci fay jaamu nëbb na ko jaamu yi ñu bëri bëri jaamu la ci yóbbu aljan nëbb na ko nit nga farlu ci jaamu gu nekk ah lu baax lu nekk nga farlu ca naka mu nëbb turam mu mag wi ci mboolem ci rëy laylatul qadr itam nëbb na ko waaye daje nañ ci ne xat mu nekk dana am te xat mu nekk ci weeru koor lay doon yonent na ne nag jug leen ko ci fukki fan yu mujj yi ci ci bés yi fukki fan yu mujj yi bés bu ci tool nit nit ak benn nit ak ñett nit ak juróom nit ak juróom ñaar ñaar ay ci bés yooyu lay ñëw fukki fan yu mujj yi ci bés yu yi ñaar ci tool yi nee nañ ci digg ajuma lay dajal faaw kon nag guddi gi guddi gi ci teewul kese laa juma de sàggan lan doon sa kongo am na ñaar fukk ak juróom ñaar la ci at mu nekk te looloo siiw te moom la ka di njëfe Ibnu Abbaas wax ne moom xam na ko ñu ne lu mu ko xamee mu ne yàlla tudd na laylatul qadri ñetti yoon ñetti yoon te laylatul qadri juróom-ñeenti la ñetti juróom-ñeent ñaar fukk ak juróom-ñaar la moom foo la ko moo tax mu ne guddi laylatul qadar ak mu nekk mooy ñaar fukk ak juróom-ñaar lu mën a am daal guddi googu moo gën junne ci weer kaaba yi dañoo wax ne saaye xeetu Muusaa ñoom ñu daal dund ay juróom-ñeenti téeméeri at ak juróom-ñetti téeméeri at ñun suñ xam yi dafa gàtt ba nuñ koy toppee loolu doy yàlla na leen may na leen guddi laylatul qadr nga xam ne moo gën junni weer tanazalu dana wàcc al malaa'ikatu malaaka ya wala Jibril guddi boobu lu tax mu gën malaaka yi dañuy wàcc ci suuf ak woowu dafay wàcc moom itam mu ne ak Jibril waaye Jibril ànd naag malaaka yi wàcc de roobu moom itam beneen roobu la si rabbi yi ci digal borom fenn min kulli amrin ci lépp mbir guddi salaamun mukri ñu yeb moom la ataamat laayal fajri ba ca xarak fajar guddi la yeetul xadar nag lépp salaamun salaamun rek la malaaka yi waxante bu bëdd set